askan wi c'est une famille fii euh, du mbiru politique kese moo ñu boole ndax wax na ko léegi euh, Khalifa Ababacar nekk fi woon dafa dagg voyage am ñëw Déthié Fall nekk fi wante xelam yëpp mu ngi fi ak ñeneen ñi nga xam ne sax xëy Maté matewuñu tey teew ñun ñëpp xam nañu seen xol mu ngi fi. l'heure est à l'unité may wax ni li woon moo woon ni président Macky Sall li mu jotoon a def loolu mënatul a nekk ci jamono juñ toll ni ndax nak président Ousmane Sonko nam Pastef mom moko bot nam laytaay yi askanu Sénégal da ci am wal mi ñu xamni ne rogganti bi yeewi askan wi la yeewi askan wi da koo rogganti parce que dañ ko jël jiital ko ci élection législative wëlbeutiku jël kuréelu maire Séné maire yi nga xamni yépp mom moom am muy réel dénk ko ko wëlbeutiku nak may ko cër ca cër boobu da ko may kenn ku nekk ci ñun donc tay dépasser na mbiru parti politique wala mbiru euh, euh, domaine privé wala mbiru nit ak ak digganteem tay c'est comme un frère un ami moom moo nekk ci jafe-jafe noonu ko waa Pastef jàppee dañ ko war a taxaw ñu weesu noonu ñun ñii waa Yewwi noonu la ñu xalaatee noonu lañ ko war a taxawoo may wax nag ne président Macky Sall euh, bu ma yeboo ne nit ku iñaan la nit ku soxor la nit ku xat xol la parce que nag xat xol weesuwul nga doxal sa jamono te nga ne kenn du doxal jamonoom xat xol weesuwul yow 2009 ba 2011 ngay lambar lambari yow néegu ñax sax dugg nga ko fu nekk dugg nga génn fa def sa ay tournée tay un parti politique jóg taxaw di def nemeku tour lune nga nga mobiliser ko ci arsenal politique arsenal militaire arsenal gendarmerie police lepp taxaw deuk bi pendant trois semaines ken waxul lu ci nemmeeku tour deug la dañ ko wara wo woo dañ ko wara até mais momento bi ndax lepp lu am rek nga nan moment ba mu amee ndaxte nag foog naa 2021 ak légui yagna dara lan moo tax moment bi tay lolo téyal xelu sénégalais di téyeel xelu sénégalais yi mooy lu tax ñu choisir moment tey bi pour wooti Ousmane Sonko mi nga xam ne boobu ba léegi mu ngi naan woo leen ma ndaxte mbir mi dama koo bëgg a simmi teg fee balaa may dugg ci candidat présidentiel naam sax sénégalais yi ñoom raxas nañ la ba nga set wecc parce que fii bu nekkee dafa am ñu détourné woon ay xaalis ci ci caisse d'avance sénégalais nee nañ ko gëmuñu loolu parce que xalifa mi tey lañ ko gën a jox bopp ba mu ne kii dañ ko wax ci ay mbiru mœurs sénégalais tay lañ ko gëna jox bopp parce que dañoo jël lavé lolu jël plus de 83 députés ko sun loxo kon sénégalais yi ñoom euh, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts waaye tay li am moy depuis trois semaines gis ngeen persécution bi am ci euh, némé tur bi nga xamante Pastef mu ngi koy def ak ak leader gis ngeen même violence nga xamante ne dem na ba am ci ba ay nit ñu leen ci songu di kar ay convoi lolu yépp ci xatum xolu président Macky Sall lay amé waaye nag ñu koy araftu di ko wax ne ko 2021 li amoon naam dañoo wax ni ñoom nit ñi dañoo xiifoon ak nit ñi dañoo maroon ndax dara jotu ko politique dara jotu ko soulèvement populaire man de li ma xam te ñun ñëpp ñu xam ko te gis ko itam ci suñu élection yi passé mooy xale yi Sénégal ndawu Sénégal ñoom ñoo jóg taxaw ne dootuñu seetaan seetaanati mukk ñuy tënk nit wala ñu lay seppi wala ñu lay toroxal wala ñu lay faagaagal te nag tey Ousmane Sonko moo aaye waye nak na xamné ne bi nak njël li da ko bok ak ay moromam ndax njël li mu ayé tay kenn ku ne da nga ndugu tek ca lolu moy ni waxuma la du ci wét mais kenn dul nangu di sétane askan wi di ko seetaan jeunesse bi di ko kenn du ko kon nak ñun ñepp may ñaan ñu ñaanal jamm eh, Ousmane Sonko jaanal ko jamm yewi te Sénégal yi nga xam ñu ngi tok seen bir kër man ñom lay yobante ndax nit ñi né nañ pression dafa am mais kan mo indi pression ku ñu wo jeudi tay lu ci yonam ci pression kan mo tek pression bi ki bunkériser dëkk bi ki nga xamante ne foo romb bu fekk escadron yi taxaw ki nga xamante ne euh, def na ay rappel des troupes def fexé sax ba fuite ay message ndax kenn doful fii kenn doful ñëpp xam nañu lu génn ñom ñoko ko génnee ay message ñu naan tango pa charlo Bravo mel ñu nek ci James Bond ah du yóbbu fitu nit ñi du yóbbu xelu nit ñi dañu ñi nit ñi dañu tang dañu sonn

qui a tellement subi, qui a tellement vécu et qui, de son, même de son jeune âge, ne peut plus accepter de, vivre de l'injustice sans réagir. On dit que cette jeunesse est sans, espoir. On dit que cette jeunesse n'a pas de formation, elle n'a pas d'avenir. Cette jeunesse ne peut même plus émigrer parce que quand elle essaie, elle meurt dans les eaux parce que tout simplement, euh, euh, par manque de secours. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui a décidé de se mobiliser dans le PASTEF, dans le Yehu Askami. Et c'est cette jeunesse qui n'acceptera pas le sacrifice d'Ousmane Sonko. Donc j'appelle l'opinion internationale à faire de leur mieux pour demander à président Macky Sall de souhaiter la paix, rien que la paix et la santé à Ousmane Sonko, candidat du PASTEF. Parce que tant que Ousmane Sonko aura la paix, nous estimons que ce pays sera en paix. Mais tant que Ousmane Sonko n'aura pas la paix, nous estimons que nous n'aurons aucun contrôle dans cette jeunesse, que c'est parce que cette jeunesse est tout simplement aujourd'hui à la merci de son avenir. Cette jeunesse se dit, on n'a plus que cela, on n'a plus cette dernière chance, on n'acceptera pas que cela soit écarté. Donc les, les étrangers se le tiennent pour dit, Yewi lui, ni le PASTEF ne sommes pas des ennemis de, l'étranger, nous ne sommes pas des ennemis de l'international, nous avons toujours coopéré et nous pensons que le Sénégal est un pays de paix et de teranga, mais c'est un pays surtout de vérité. Et la vérité doit être dite que le président Macky Sall retienne ses ambitions, euh, organise des élections, quitte le pouvoir parce qu'il est arrivé à la limite et que cette méchanceté gratuite dont il fait preuve, qu'il l'arrête parce que de toute façon, ça ne sera plus accepté. Merci beaucoup. Thank you.